wa ala alihi wa sahbihi wa xadimi mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi nuyu ñëpp tey balu ñëpp xaq di bal ñëpp xaq ñaan suñ boroom jéggal na xam naa comme ni ñu ko baaxoo ci ajuma ju ne tey danoon na ci jeexantalu weer woo xam ne wala ci bis yu mujj weer woo xam ne dafa bokk ci ngëneelu weer yi weer yi nga xam ne borom bi moo leen tànnal boppam ne ñent yi moom maa ko jagoo defal leen seen ngëneelu bopp ñu tudde ko al ashhurul xurum muy weeru rajab weeru rajab benn la ci fukki weer ak ñaar yi nga xam ne borom bi ne na maa bind asamaan ak suuf bind fukki weer ak ñaar def ci ñeent yoo xam ne dama leen a xormaal rajab bokk ci biir bari ay ngëneel lool bokk na ci ngëneele mooy li nu wax léegi mooy fukki weer ak ñaar yi borom bi ñeenti weer la ci tànn te rajab da caa bokk muy weer yu ñu tudde dul qiada dul xijja ak muharram ak rajab mooy weer wi jiitu tabaski ak weeru tabaski ak weeru tamxarit weeru rajab moo ñëw ñeental leen moom ñett yi la ñoo toftale waaye moom dafa ñëw beru ñu tudde ko rajabul fard borom bi moo xam la mu ca jublu waaye di weer woo xam ne tamit woor ci wuute na lool wala tuyaabaam ëpp na lool woor ci weneen weer wu weeru koor weeru koor moom farata la waaye ci ngëne yi ci koori coobare yi dañuy sopp lu ñu tudde sardu rajab sardu rajab mooy sardu mooy boros mooy boo wooree tey dog suba woor gënaaw suba dog bis ba ci topp waaye def ci beneen bis boo xam ne tamit mooy bisu fukkeel ba juróom-ñaar muy kazu rajab koor gi tamit bokk ci yi nga xam ne dañoo xemmem lool ci lislaam te mu bari yoon lool yonente bi sallallahu alayhi wasallam fonkan ko mooy woor ko noonu la ci naafilee ami doole noontam la ci julli ami doole ndax kenn ku ne xam na ne ci weer wii la borom bi tabaraka wa taala wàcce woon julli wàcce ko sax duñ ko mën tudde wàcce waaye fonk gu mu ko fonk dafa tax mu woo muhammad sallallahu alayhi wa ba mu fekk si ko mu jox ko ko jaarale ko ci jibril jaawale ko ci keneen da ko wool boppam ci guddi gi mu ñëw mu joxal ko ko boppam ak yeneen ak yeneen yoo xam ne xëy na du xaj ci biir waaye yooyu yëpp dañ cey tànn rek lu mel ni al isra wal mi'raj bi mooy reñaan gi yonent bi sallallahu wa sallam defoon bu noppee ñëw ci julli donte jaar nañ ci ay yoon yoon waaye ñu jaaraat ci ngir mu doon feddali ndax dañoo nekk ci weeram bu ci xajee incha allahu am na tomb boo xam ne am na mbokk yu ko doon faral di laaj ñu bëggan koo andi mooy imaam bu la rawee ci julli ni nga koy dabaatale dañ ci seetlu ay defin yu wuute yoo xam ne wenn defin wi rek moo war a wér kon wax na ne weer wi bokk na ci lam mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci la ko borom bi woowoon mooy loo xam ne moom rek ko am ba mu fekk ko fa mu ko fekk mu déey ko lam ko déey mu indi ko am loo xam ne yonent bi sallallahu alayhi moo ko waxal boppam ne na dafa war ci man ma leeral ko ñépp mooy farata lu mel ni julli ca la bokk am na ci loo xam ne bi ku ma neex mën naa la koo déey waaye am na ci loo xam ne dafa xaraam ma wax ko kenn moo tax boroom bi wax naan fa awxaa fa awxaa ilaa wa awxaa ilaa abdihi ma awxaa ba mu ba ca man ma déey ko la ma ko déey moom leen solo salaam wax na ñetti xaaj la mooy yooyu ma tudd léegi waaye bokk na ca xaaj ya mooy julli kenn ku ne xam na ne julli borom bi tabaaraka wa taala da koo fonk comme ni ma ko waxee léegi fonkel goo xam ne jaayu ko ci malaaka mu ñëw di ko dee yontu salaaw salaam waaye da ko woo ba fa moom ca na mu ko jagoo mu leeral ko ko mu ñëw wàcc leeral ko jullit ñi euh, al isra wal mi'raj nag buñ ko waxee reñaan wolof mooy wax reñaan waaye ñaari mbir la reñaan dafa am ak yéeg gi mu yéeg fekki boroom bi tabaaraka wa taala ca nam ko war a fekkee rañaan xam na ne ci wolof mooy jox guddi mooy jóge gi mu jóge màkka dem ay albaytul muqaddas ba ci ca Palestine nii loolu mooy jox gi guddi foofa julli na fa jiite fa yonent yi sal alayhimu salaatu wasalaam def fa lam fa war a def ñu door koo jëlaat yéegal ko mu dem fekki boroom bi tabaraka wa taala loolu moo tax ñu naan al isra wal mi'raj waaye lépp ginnaaw ci guddi gi la xewe moo tax ñu naan rañaan gi yonent bi sallallahu alayhi wa bi mu ñëwee bàyyiwul di ko nettil boppam waaye boroom bi ci boppam moo ko nettil boppam subhaanalladi asra bi abdihi laylan min al masjid al xaraami ila al masjid al aqsa alladi baarakna xawla li nuriyahu min ayatina innahu huwa samiul basir borom bi moo bàkk boppam moom ci boppam moo bàkk boppam ne man maa reñaane sama jaam bi jële ko fii ci jàkka ji ci màkka jële ko ci yóbbu ko ca jumaa yi jële nekk ca albaytul muqaddas ca Palestine mooy Jérusalem ngir mu ñëwee ma won ko lenn ci sama kiimaan yi loolu mu salaa salaam bi mu ñëwee wax ko wala bi mu ñëwee nettali ko nii yëfar yu baree baree bari am na sax ñu gëmoon waaye seen ngëm àggutan fenn fi ne mën seen xel mën naa nangu loolu ba am na ñoo xam ne sax dañ jëloo sikk sàkk te ay jullit la noonu yéefar yi nag moom kenn waxaalewu ndax dan ko ne loolu moom mënta ne génn guddi loo xam ne ay weer lañ koy dox rek yow nga dox ko waxuñu nga ne fekk nga yàlla ñëwaat nga loolu du lu mën a nekk léegi da nga nuy jox firnde benn saay-saay ci saay-saay yéefar yi ne ko yëkkatil sa benn tànk mu yëkkati mun ne ko na beneen bi fekk ci kaw mu ne ko ma ko defee daanu mu ne ko ko ku mënut loolu xam nga li ngay wax amul waaye borom bi moom moo ko dëggalal boppam wàcce aaya bi nii ne man maa ko def nii foofu lan tuddeen Seydina Abu Bakar Abu Bakarin Siddiq ndax ba mu ñëwee rek ñuy coow na ko sa waa ji am na lu mu waxati mu ne xaar leen ba ma àgg ci moom bu dee moo ko wax rek dëgg la bu dee moo ko wax rek dëgg la yu mu demee laaj yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne nii la demee mu ne dëgg la ci la ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam as mooy koo xam ne bii moom du xool leen lu yonent bi wax rek moom mun a dëgg la parce que xam na ne euh, dëgg la ndax yonent bi sallallahu borom bi moo ko wax ne ko wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha yonent bi sallallahu alayhi wasallam du waxee bakkan du waxee coobari boppam lu mu wax yàlla moo ko wax loo te loolu sax daa bokk ci melo yi nga xam ne bii dafa war ci ab yonent ngi mu mën a mat ab yonent euh, isra ak miraaj boobu bokk na ci ngëneel lu mu am mooy inu sala salaam wax naa ko léegi borom bi moo ko wol boppam waaye itam fa mu àgg yàlla ci jegeñ ca ca ca na ko yàlla jagoo kenn mësu fa àgg ndax borom bi moo ko waxal boppam fa kaana xaaba xawsayni aw àdduna ne na sama diggante ak sama jaam bi dem na ba toll ni ñaari xocc xale yi maam fittu ñax tey boo ko amoon nii ñaari xocc yi ni niy def ni ni jegeñante noonu laa dem ma sës rëkk ak sama jaam bi fa awxaa ilaa abdihi ma awxaa ma déey ko la ma ko war a déey kon mel na dafa def secret boo xam ne bii wërtu jaar ci jibril mënta jaar ci keneen keneen àttanu ko moom rek la ak yonent sallallahu ci guddi googu la ko defe muy guddeeg ñaar fukkeel bi ak juróom-ñaar gis nga isra ak miraaj boobu ak li muy ci yàlla wax lépp tiwut ba léegi am na ci jullit ñi ñoo xam ne sax dañuy werante naan gént la woon ak ruux gee dema nag jëmm ji demul waaye sunu sëriñ Cheikh Ahmad Bamba moom leeral na ko moom wax na ko bil jismi jahra bil ixtiraa'i bil jismi jahra ne ne yaram weeg ruu gi lépp a dem jahran moom noonu la ko waxee te loolu mooy lu yun sallallahu alayhi wax ndax loolu ku ciy sikki sàkk da ngay sikki sàkk yàlla lu mu man ak lu mu mënul yaakaar naa bind doomu aadama moo gën a jafe bind ko ba noppi woo ko wala nga def loo ko yenn jëf yi kon loolu la ñuy tudde al isra wal mi'raj ci guddi gii la amoon mooy guddeeg ñaar fukkeel bi ak juróom-ñaar maanaam ñaar fukk ak juróom benn ci guddi jàpp ñaar fukk ak juróom-ñaar mooy bis bi ñuy màggal kazu rajab kazu rajab tam lool rek mooy tënk bi foofu dañ fiy taxaw tuuti ndax mbokk yi tur wu ne koy woowe waaye kazu rajab kaaf la ak zaay zaay mooy raa googu ñu tomb tomb ci kaw kaaf gi mooy ñaar fukk zaay googu mooy juróom-ñaar mooy ñaar fukk ak juróom-ñaar rek ci rajab moo tax ñu naan kazu rajab ñaar fukk ak juróom-benn yi nag bokku ci waaye bu guddi gi duggee loolu foofu la bis bi tàmbalee moo tax ñu naan guddeeg kazu rajab kon mel na ni guddi gi mooy doon tey bu ñu doon wax nii ci at mi nu toll nii altine yaakaar naa mooy doon ñaar fukk ak juróom-benn guddi ga bu jotee mooy guddeeg kasu rajab bés bu setee. talaata ja mooy kasu rajab mooy ñaar fukk ak juróom-ñaar mooy bis bu ñuy woor kon loolu tax ñu naan kasu rajab kazu mooy 27 ñaar fukk ak juróom-ñaar ci rajab euh, isra ak mi'raaj boobu tam Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu wax na ci ci yu baree bare waaye dañ ciy jukki fi ci andi ci mawaahibu ngëneel yi nga xam ne bii isra ak mi'raaj bi mooy rañaan indi na ko ak yum salaa salaam ba mu demee lam fekk ci yenn yonante yi ak daraja jan ko jox mu wax na sural amini maa al amini fawqa al amini lil asfiyaai mahad dalaala abdal jalaala abdal jamaala lil atqiyaai nee rañaan gi nga xam ne bii yonent bi salaa salaam da koo rañaan àndanoog alburaax alburaax nan fàttali ne am na foo xam ne ba mu àggee dana yonent bi salaa salaam mënatumaa àgg yow yaay dem ne yunus sallallahu alayhi wax na ne bu bu bu bu woon benn jéego nib karaw di seeye ci sawara lay lay seeye ndax daraja yooyu attanatu ko yunus sallallahu alayhi rek moo fa bàyyi moom dem fekki boromam ñëw fekkaat ko fa mu nekk moo tax sëriñ bi wax naan yunus sallallahu alayhi wasallam rajaan nga mu defan ànd koo jibril wala alburaax ànd koo jibril war ci kaw alburaax ne na moonu faral ak réer waaye moonu andil teraanga ñeel gaay yu baax yépp loolu mooy lan lam fa jële ci teraanga ak la fa borom ba déey ak lam fa indi ci julli julli gi dinañ ci ñëw ci kanam bu fekkee xaj na ci incha allah waaye ba mu fa fekkee yonente bi salaa salaam yonente yi alayhim salaatu salaam teraanga jan ko fa defal ak daraja jam fa am qad qaddamuuhu id waajahuuhu waxtaramuuhu dawi naqa dawi naqa wa saada fihim wa baana anhum wa siina anhum baada nee na ban ñëwee ba mu ñëwee ñoom ñépp ko jiital mooy benn mu ngi njëkk a jullee ci Jérusalem ca baytul muqaddas ba mu ñëwee ñoom ñépp dañ ko jiital ne ko yaay sunu imaam loolu mooy xad xaddamuhu idwaajuhu waxtaramuhu ñoom ñëpp a ko jox orma def ko seenub sëriñ nekkub taal bi ci gannaawam wasaada fiihi mu doon seenub sang ñoom ñëpp ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla moo ko tànn wasiina anhum baada irtiqa loolu sëriñ bi am na feneen fu mu ko leeral ci xasida ak miim mooy ne am ci njàngale mu rafet amaana kuy dégg wax ji na waa yonent yi ak daraja yi nu am dem di jiital kenn koo xam ne moo doon seen rakk wala moo doon seenum caat mu ne axa kay ab jant da bu fenkee biddiw kenn ku ne xam na ne leer na day leeral weeru leer na day leeral waaye jant fu mu fenkee ñoom ñëpp lay nëbb yonent bi sallallahu alayhi mooy jant bi ñoom ñooy biddiw yi ak weer wi dafa wax ne hal qaddamuuhu wa saaru muqtadiina wal kullu minhum amma xiyaaran sha'nuhum aduma mu ne ajal idi shamsu tux fii kawkaban abadan maa sini maari mahma mahma zax-zaxat zulama na ñii werante ne yonente yi danoo jiite yu salaa salaam bi mu ñëwee di roy ci gannaawam ni ñooñu xanaa danoo xamul ne ab jant bu fenkee lu weer leer leer ak lu biddiw leer leer day nëbb ndax jamono ji ñuy wax nii weer waa ngi fenk biddiw yaa ngi ci asamaan si waaye kenn mën na leen tëj bët lu tax leeru jant bi faw timis jot jant bi nëbbu nga gis weer gis ay biddiw na yul salaa salaam ba mu ñëwee noonu la leen nëbbi ñoom ñëpp ci darajaam euh, ba tax na ñoom ñëpp ñu jiital ko xam ne mooy seenub sang xad aaba layla xad sabba nayla sayla min dil baqa mu dellu siwaat ci guddi gi andil nu sottil nu teraanga joo xam ne bii xad faaqa sayla moo raw aw waame jële ko ca borom bi tabaraka wa taala kon li mu waxoon ne yàlla waxoon ne sama jaam bi dee naag fa loo xam ne dama ko faa dee suñ suñ diggante la ñoom ñaar moom la sëñ bi dëggal fii xad aaba layla xad sabba nayla xad faaqa sayla min dil baqa dellu siwaat ci guddi gi sottinu ay may yoo xam ne ay ngëneel yoo xam ne xad faaqa sayla moo raw aw waame min dil baqa jële ko ci borom bi loolu bokk na ca muy julli ndax ñëpp yaakaar naa ñu bari xam na ne bi mu ko koy jox nee nu juróom fukki julli la woon waaye saa bu wàccee ba ci Seydina Muusa mu ne ko sa xeet wa ma xam day attanunu lii juróom fukki julli ci bés attanunu ko muy dellu di ko wàññi di ko wàññi ba ci juróom mu ne ko delluwaatal mu ne ko rus na maa delluwaat nag di wàññi la moo tax ku farataal saxal juróomi julli yi ca na ko borom bi digle ca waxtu wa da am yooru juróom fukki julli ndax noonu la ko borom ba Euh, farataalu julli yaakaar naa moom duñ ci taxaw lu bari kenn ku ne xam na ne yum salaa salaam wax na ne liy dox diggante yéefar bi ak jullit bi mooy julli ndax julli mooy identité jullit identité jullit tey mbooloo mën naa toog fii duñ xàmmee kay ju kay yahud ba ak kay chrétien ba ak kay jullit ba waaye bu waxtu ba jotee ca leen war ràññee ne kii fii la bokk kii fii la bokk moo tax mu ne li dox diggante jullit bi ak yéefar bi mooy julli bu ko bàyyee rek kenn mënatu koo ràññat ak akuk julli mu bokk ci bàkkaar yu mag yi nga xam ne yéexe wax doomu sax bàkkaar la wan mi azima danbi lil mu xiri loolu sëriñ bee ko wax ki nga xam ne waxtu bi day jot mu koy yeexe ba waxtu wa génn kooko nee ko am nga bàkkaar bu mag a mag faat waxtu nag moom kenn waxaaliw ko amoon naa wax naa yaakaar naa bayaan buñ ci defoon mooy ci ko xam ne da koo def rek wet weddit ne julli sax na waaye xëy na ak càgganteem la daa nangut julli kooku am na fu ñu koy yóbbu ba waxtu agsi bu nangut a julli moom dañ koy daal di faat waaye na ñuy faate lañ koy faate dinañ ko suul fa bàmmeelu jullit yi dinañ ko defal li ñuy defal jullit ñi koo xam ne nag dafa nangu nangu wut saxub julli moom kooku dañ koy tuubloo ñetti yoon bu lankee ñu faat ko faatu géttan goo xam ne bii duñ ko jàppee jullit ndax duñ koy jàppee ak kéefar ndax borom bi moom moo ko farataale boppam noonu moo ko fonkal boppam noonu la mu ca wax tamit nag bari na lool moo taxoon bokk na ci sërite bi mu nu andil moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk na ca mooy julli waxtooy juróom julli na yaakaar naa ci ndonga ci murit ci taalibe doonu sax lu ñu war a toog di cay soññe wala ñu cay fàttali ndax kenn ku ne bu xoolee sunu sëriñ Cheikh Ahmad Bamba la anhu fa mu tegan julli ak nam ko fonkeen ak la mu ca def déggaatunu ci taarix kenn ku ko mas a def mooy julli na fu ne bu ñu waxee julli na fu ne mooy julli na foo xam ne bii xëy na wéet na julli na ci mbooloo julli na ci biiri noon waaye julli na itam ba julli ci ndox julli na tam ba julli foo xam ne sax ndox mi ni wax lépp dëgg la kaawteef la waaye fa mu nekkoon ci maayomba doon fa def jàkkaam ja loolu moo gën a doy waar fop li ñuy wax ci ci bato bi ndax foo xam ne bii euh, bu doon sunu sunu kalaasu bopp gi dangay wax ne yàlla teggil na ma julli ndax sàrt ya benn matu ca benn matu ca yaa ngi ne dañ laa téye fa nga nekk ak dal amu fa saa su ne sa bakkan man mën naa dem est-ce que di am sax fu laab foo ko mën a defee est-ce que di am sax barab waaye ci góor góorgóorloom ak ci njàmbaareem yaakaar naa bant yooyu mu doon dajale ak la ci xewoon lépp ba def ko jàkka ba nga xamaa ne sax bu waxtoo korite jotaa sax moo daan noddul boppam wala boo bu waxtoo julli jotaa moo doon moo daan noddul boppam liqaamal boppam julli ci condition yoo xam ne moo gën a metti fopp la mu defoon ca ca ba donte bato ba lu doyoon wàll te nee na moom ba mu koy def tam defu ko woon ngir kaawteef waaye dafa xam ne waxtu yu jot na dafa war a jaamu boroomam te ñii ay jaam la ni moom jaraluñ ko faat waxtoo boroom mi te neneen ko boo jullee fii di ngeen tooñ te moom du tooñ yàlla du tooñ moroomam moo tax mu génneen wakkiilu ci yàlla teg ko ca kaw fa yàlla fekk ko fa loolu yaakaar naa doy na soññ ci ci ñun ñu xam ne kon euh, julli moom doonut lu am ndonga am murit war di sàggan Tuubaa ndam ba mu koy sànc bokk na ca la mu jëkk a ñaan boroomam wal tusbitan fiihi jamaatan tuqiim alsalawaati alxamsa daban yaa xakiim yàlla maa ngi lay ñaan nanga fi saxal mbooloo moo xam ne dañ fiy saxal jullee juróom ba faw kon loolu Tuubaa nag ñun ñëpp ci biir Tuubaa la la kon foofu la ñu daanee la xam ne kon ab soññ la bu rëy ci ñun ci sëriñ bi ñu xam ne weer wii mooy weeru julli weeru jaamu yàlla la waaye weeru la tam boo xam ne dañ cee am ñaari ngëneel mooy màggal gi ñuy màggal kazu rajab danoo am kilifa gu ci teew wala boog ci feeñ ci guddi gi moo tax muy ñaari ngëneel daneen màggal laylatul isra waaye di màggalaal kilifa googu dégg naa ci nettali lu ñu ne Serigne doon wax ne yonente bi dane dane lay mën a cëpp ca ca waxim ju ca waxinam ju neex ja amin salaahu salaam dafa riñaan rek man ma daal di wàcc moo tax moom noonu la fonke woon julli daana wax sax booy déglu ci waxtaanam naan julli day wax ne liggéey bi lépp loolu la julli rek lépp lépp lool loolu la fonkeen julli yaakaar naa ba xam naa looloo ko ca topp xam naa ñi ngi daaneel foofu waxoon na ne dinañ andi ci lu mel ni fay ci ginnaaw imaam rakk yi la raw waaye incha allah bii di ñëw dinañ ci jéem a dugg ndax mbokk yu bari dañ ko yittewoo te di ko laaj si dafa doon loo xam ne tam boo ci juumee mën naa yàq sa julli boo ko defut nan ko war a defee sama classe gi yëpp dañuy sàggan ba imaam dina taxawal ba romb benn ràkk wala ñaar ñu door a ñëw dabesi te amaana loo xam ne boo ko na jooxewul sa julli du baax kon loolu dafa doon farata ci ab jullit ngir mu xam ko ñu daaneel foofu kàddu yi di jéggalu ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.